Yeah, yeah, what's up, what's up, people? nu demee gars yi sama gars cool, huh? ngi Kula mi ngi Jaxa sir. mi ngi good mi ngi good stay real yes sir bien gars yi maa ngi ay pôle d'avocat ñu nekk fi donc on est là pour euh, porter plainte le gouvernement sénégalais qui crime crime yu mi def donc fi ay avocat rek ñoo fi nekk des avocats internationaux waaw donc euh, voilà on avait rendez-vous ci un pôle d'avocats essayer de porter plainte le gouvernement sénégalais ci ay crimes financiers ay crime, plus de 17 morts ay trafic de d'armes euh, des contrats fictifs euh, donc on est là euh, on attend après on aura on verra les, avocats ici donc ils sont là donc on va essayer de les voir ay numéro ay chaîne donc on est là voilà quoi donc, on m'avait donné rendez-vous pour, euh, pour, parler. Pour... LEP, c'est des, des, avocats. LEP, c'est des, des, avocats. Mais... Bon, ni moi, ni ils sont là-bas. Donc, on va essayer de, de porter plainte au gouvernement sénégalais pour. Les euh, Yeah, gars, mais cool, hein, ah, mais cool. Donc, nous fait quoi Nous euh, avons dañ doon énumérer lépp un naa un boo dossiers vous m'envoyez vous m'envoyez les dossiers Lep vais dajale le maximum donc faites quelque chose envoyez leen avec les crimes que Macky Sall a fait ñu donc euh, voilà quoi. si tu veux parler. Euh, ouais ouais je suis en train de parler on doit se voir après quoi. yeah tu vois donc euh, Gaïa les avocats sont là donc voilà xaar Madame dem ci beneen salle bi

Eh, dañ koy xawma delloo xawma la ak lan ku ñuy delloo <laughs> parce que connerie quoi des conneries quoi am Sénégal dañuy toog ci benn village naan oh j'avais fermé ça quoi attends je vais prendre la clé là ok ok ok c'est cool c'est cool ok lii bureau la bureau avocat la donc euh, ils vont faire signe bientôt donc pour l'instant kii moom liggéey siwul bureau avocat bi la tu vois kenn la avocat caméra beeg yëpp donc euh, voilà donc là, comme nous ma leen ko waxee démb rek man caaxaanu damay donc boy, xeex euh, tu ménages aucun effort donc euh, il faut tout faire pour porter plainte le gouvernement qui raille nit yi ñuy rey ci malversation financière ni ñuy def ci euh, scandale financier et foncier li ont yi def ci dérive autoritaire yi qui def ci Sénégal qui jappé jàppee village japp ñu leen neex tecc on va parler de l'affaire j'avais déjà commencé on va parler de l'affaire Pape Alé on va parler de de l'affaire euh, Karim Xrum de déjà euh, jotoon nañ ci élaborer bam wax ma est-ce que amna fenn fuma leen mëna won ils sont en prison et que c'est des activistes donc lolu moment yomb na pour montrer que les Abdou Karim Gueye, tout ça, ils font des lives, c'est des activistes, ils sont très suivis et ils sont tous en prison. Donc euh, voilà, ne vous inquiétez pas pour, pour, pour nous. Pour nous, ne vous inquiétez pas. Ici, il n'y a pas de problème. C'est un pays très calme. Canada, c'est un pays très calme, super calme, super sécurisé. Super sécurisé, je vous dis bien.

attention, moi euh, prudence, moi non, ici c'est pas Sénégal, ici c'est même pas la France. Ici, c'est pas Sénégal, c'est pas la France, ici c'est Canada, c'est l'un des pays les plus sûrs au monde. internet l'un des pays les plus sûrs au monde Canada fait partie de l'un des pays les plus sécurisés au monde donc euh, vraiment euh, <laughs> tenez-vous bien quoi sincèrement man yéen laa jax motax may ray sama bop yéen si sen sen situation moma jaxal mais sincèrement du fi du fi quoi <laughs> voilà C'est euh, euh, seen situation moma yem motax ma taxaw di xex motax may wax motax may jaay sama bakkan mais très sincèrement je suis super sécurisé super sécurisé et et voilà quoi ne vous inquiétez pas on est là euh, ay citoyens yu am ay yu am ay ay avocat lañ ay citoyen yu am ay pôle d'avocat ay citoyen yu xam suñuy droit ay citoyen yo xamni ni euh, voilà yu yu am yenen leurs citoyenneté ay citoyen yo xamni ñu xam seen devoir ay les ay citoyen yo xamni dañuy comme ay xar ay beuy kum neex ray fi personne n'ose personne n'ose les doom les joxoñ rek wala diko ko insiste wala diko ko menacer wala dara Les kenn les ko les gaay ñi ngi fi ñi may wax seen doom sen njiit yëpp sen dom yaa ngi fii seen njiit yëpp seen doom yaa ngi Moussa Fall doomam mi ngi euh Mamour Diallo doomam mi ngi euh Mimi Touré doomam mi ngi fii ñoom ñëpp seen doom ñoom ñëpp seen doom ngi fi c'est très sécurisé ici c'est Canada c'est pas la France c'est pas l'Espagne c'est pas ici c'est j'ai vécu en France j'ai vécu en Espagne mais j'ai vécu aux États-Unis mais je sais que l'un des plus les plus sûrs l'un des pays les plus sûrs et plus sécurisés c'est ici le Canada. C'est pour cela mu doon terre d'asile c'est pour cela moo mu ouvrir ses portes ci dëkk bu am guerre moom mooy dem jël ñëpp gis ngeen Afghanistan li fa amoon gars di daw di dugg ci avion yeeg yooyu Canada moo dem teg ay avion yanu leen ñoom ñëpp duggal fii Canada c'est l'un des deux pays les plus euh, grands au monde Canada à part la Russie amul dëkk bu ko gën a rëy ci àdduna amul dëkk bu ko gën a développé ci àdduna amul dëkk bu ko gën a rëy ci àdduna à part la Russie mun naa yenu Sénégal sotti leen fii te doo leen sax gisante doo leen sax yëgante ni Sénégal àdduna mun na jël 17 millions de Sénégal sotti leen fii te kenn du gis kenn duñ sax daje duñ sax daje c'est l'un des deuxième pays bu gën a ngand ci monde bi deuxième pays bu pays bu gën a sécurisé bu ëpp liggéey citoyen nekk seen jàmm di dox moom donc euh, Vraiment, ne vous inquiétez pas pour ça. Et que, encore une fois, je suis très, très, très sécurisé. Je suis en sécurité. J'avais même pas voulu euh, déposer pour la sécurité. Parce que j'avais cette possibilité de, je suis en danger, de Google un dossier pour, euh, en fait, une protection. C'est possible. Je Google dossier pour protection. Mais j'en sors Je suis super protégé par Dieu, par moi-même, et il n'y a pas de danger ici, il n'y a rien d'ici tout. Fii ay wëyu nekkuñu fii des tueurs à gaz, nekkuñu fii ay nekkuñu fii c'est c'est des mensonges on est bien en sécurité on est très très très bien en sécurité donc ne vous inquiétez pas koo fi gis avocats des avocats qui sont là qu'on les paye et que nous ñu taxawu donc euh, voilà euh, euh, de toute façon stay focus nekk leen ci li ngeen nekk man yéen laa tiital mais man moom tiitalu ma sama bopp ci dara dara dara dara dara et puis comme nu ma leen ko waxee ne pensez euh, euh, benn ngaax ngeen di waxal ne pensez que euh, maa ngi dox samay soxla quoi maa ngi génn di dara ci sama itinéraire changé wu ma dara ci sama vie changé wu ma dara ci sama dara dara dara changé wu ma ko ci sama nu may dundee nu may yeewoo lekk ba suur naan ba man di génn dem fu ma neex naan ataaya dugg démb rek maa ngi ci benn restaurant sénégalais jënd samay deux kilo débit un kilo de nu mu tuddati de euh, de ginaar trois kilos fekk fa sénégalais ñuy waxtaan ci man gaa yi dóor fa ay photo man photo photo photo junni photo ma génn dem sama yoon bu ma duggee ci ay boutique see yu ma fay fekk dañuy daw moolaa moolaa photo photo ñun daw ñun nëbbatuwuñ kenn laqatuwuñu on est en sécurité on est très très en sécurité kon lu ngeen foog ni lu am Sénégal ñu jàpp ay nit di toroxal di tëj di rey di loolu amul fii <laughs> amul fii ça n'existe pas ici ça n'existe pas ici amul fii nit yi dañ leen teg en sécurité dañ leen di sàmm fii dafa am citoyenneté voilà dafa am citoyenneté ok donc lu ma leen di wax rek moom mooy euh, mangi ci pour déposer une plainte mangi ni man lu wax rek lu la en tant que sénégalais ci benn côté parce que amna citoyen citoyenneté Sénégalais. n'est-ce pas citoyenneté donc mun na jël ci en tant que citoyen sénégalais ma gis ni ñi sénégalais Sénégal ñi ngi sénégalais ñi sénégalais wut sama d'avocat fay ne porter plainte le Sénégal le gouvernement sénégalais pour euh, euh, euh, tuerie pour tentative de meurtre de certains à, certains journalistes pour crime financier pour wax indi indi dossier ci armement yi indi petit ci j'ai ce droit là j'ai ce droit et je le fais je le fais donc voilà quoi maa ngi ci waxoon naa leen ko démb midi lañ ma jox rendez-vous midi deux la ñeu donc euh, jox nañ ma feuille moy ma énumérer lu euh, aussi aussi mi maximum d'images et maximum de documents yo euh, journaux des activistes des des journalistes etc. etc donc man suis ci donc si vous man je jour live je aussi tamit maa dem ci avocat yi maa porte plainte je monte monter dossier donc man suis maa ngi très sincèrement je suis kaw sont <laughs> rek fi Sénégal ci leur village boobu tu vois <laughs> oui voilà koy extrader koy expatrié, koy ex <laughs> bu Macky Sall Macky Sall <laughs> voilà mais man vraiment euh, ne vous inquiétez pas de mon côté je suis très bien sécurisé très bien protégé

wax naa la bu fekkee gouvernement bi jéem na def benn pas jëmale ko ci man boobaa damay dem demander protection que je suis en danger euh, sama sama sama sama euh, sama euh, vie physique maa ngi en danger wala sama lenn maa ngi en danger donc boobaa dañ may jox lañu naan protection soit ñu jox ma fetal ma dem def formation ñu jox ma fetal nga xam ne ku ma gis ni yaa ngi may jéem attaqué ma tiire ci yow wala ma et cetera et cetera dinañ la jox lépp soit ñoom ñu jox ma doomu aadama ne ma pour mu garder ma donc bu ma indee rek preuve buy wane ni euh, man maa ngi ci sama sama intégrité physique mi ngi en en danger donc euh, vraiment fii dëkk te moo duggee léegi ci ci avocat yi incha allah bëgg naa leen defal benn live tam devant les avocats euh, pôle d'avocat bi. bëgg naa taal live bi ngeen seetaan tuuti ci waxtaan bi ma def ko ngeen gis live bi ngeen gis ni ñun fii beneen monde moo fi ne beneen beneen ville la du c'est pas ay dëkku bandi yoo xam ni benn gouvernement day jóge fële rek ñu ne waaye jàpp leen kii rek ñu jàpp kooku noonu indi leen ko <laughs> baal leen ma parce que yooyu ma dam fay def ay ree Sénégal <laughs> balaa maa dee <laughs> da xam ne fii village la quoi non non waaye waaye ko extraire non jàppal kii <laughs> comme kañ bu ñuy dàqate <laughs> moo tax moo tax des bu ñu ma wooyee ndeysaan quoi ma ne ma ciy xëpp kaan yi euh, euh, là j'ai même m'a demandé aussi de de donner tous les noms de ma famille Donc, euh, s'ils ont besoin de protection, les noms sont là. Les noms de ma famille, mon père, ma mère, mes frères. Donc, nous, on n'est que des garçons. Donc, euh, je vais donner leur nom, leur date et lieu de naissance. Donc, euh, le gouvernement canadien m'a demandé de leur fournir des, noms et tout. Donc, dans les ça mon papa, ça mon yai, tout ça, ils vont, ils essayer pour leur protection. Donc, euh, s'ils demandent vraiment, ma famille demande une protection du gouvernement canadien, ils vont nous protéger. Beaucoup de aussi, nous doublons les avions et ça, nous sommes en tant que des, des, des, des réfugiés. Des réfugiés. donc euh, bu fekkee ne am na histoire bi wane ni ma famille est en danger donc nous am nañ droit donc c'est tur ñoo nekk nii voilà <laughs> seen tur yi ça c'est mon père ça c'est ma mère ça c'est mes cinq frères donc c'est une tournée. donc tout à l'heure dit que le gouvernement avait une date et lieu de naissance et tout donc euh, <laughs> voilà man waxatuma la de mais man bu fekkee ne am na nit boo xam ne sentir naa ne mi ngi en danger sax bu ma bindee turam gars yi def ko nañ def ay dossier pour ñi nga xam ne sax ñi ngi Sénégal ñoom ñu dem ba protéger ñi nekk Sénégal rek bu ko mënul ñu indi leen fii sax <laughs> donc man sama problème nee naa leen du man mais ñeneen ñi nekk Sénégal ñooy sama problème yéen sama problème mais sama problème du man très sincèrement donc euh, euh, ne vous mêlez pas dans ces genres d'histoire à la à la con de de de d'expatrier ou bien de d'exporter mel ni ko yor marchandise ça c'est des conneries ça c'est des conneries. <laughs> ok. Donc, euh, voilà. Voilà. Euh, donc, euh, non, mais tu peux pas mettre n'importe qui dans les liens, tu, tu vois, Yuaneni, tout simplement, ni sa famille, ni beaucoup, quoi, tu vois, <laughs> ni beaucoup, ni, sa famille, ni beaucoup, et que sa famille, ni, ni, en danger, mais pour l'instant, on m'a juste demandé leur nom, leur prénom, euh, le date et lieu de naissance et etc etc pour l'instant loolu la quoi dugaluguñ benn dossier comme quoi que nous ñi ngi en danger wala wala waxumatuma la waxuma laa man quoi je suis en danger donc euh, voilà <laughs> il y a de ces choses euh, on n'a même pas besoin de le cacher parce que il faut ñun dañu ñëw pour éveiller des consciences donc les sénégalais yi nga xam ñi ngi ci coin bi gars yi di len fen di len nax di len fowé donc c'est normal euh, ñun ñu léral lolu donc euh, souvent les sénégalais des fois ils te disent non amna na yoo xam ne da nga koy nëbb euh, man du ma nëbb dara du ma dara man je ne suis pas ce genre de sénégalais yo xamni ils se cachent même ay bu ñu amee demander visa sax dañuy neubatu wala buñ len mayé visa ñi laqatu buñ duggé ci avion yi di laqatu man je ne suis pas man idéologie yoy génn na ci man depuis, depuis plus de 15 ans, je suis, j'ai parcouru le monde depuis plus de 15 ans. Donc, amener une idéologie, c'est dépassé pour moi. Je suis plus dans ce genre d'idéologie euh, vraiment quoi de ne boy demander visa de l'acte boy avion des l'acte des nangam nangam euh, euh, euh, je suis pas dans ce genre d'idéologie c'était passé quand même 15 ans de Babylone 15 ans de rencontres 15 ans de voyages 15 ans d'expérience vraiment buñ la fakkaté nga am idéologie nga depuis bu nga nekkee xalab nga nga ko quoi très sincèrement mi ngi mi ngi mi ngi sama idéologie depuis bu may voyager wër monde bayina idéologie quoi man j'ai rien à cacher j'ai rien à

am na jox na ma droit boobu que man ma gisee fële lii am fa ay malversation financière ay dérive autoritaire ay banditisme d'État ay ay ay ay blanchiment de capitaux mais may nañ ma droit ma ma ma ma porter plainte lu ma ci am jël lu ma ci am jël c'est tout soit ma gagné soit ñu ñu gagné ma c'est tout mais mu wane ay preuves yi wane nii sama li may lu ma accuser sama sama état c'est vrai mais c'est normal même buñ ñu leen duñ leen mais dinañ leen mën ñom di xol seen bët fofu non di ci bàyyi xel wala ñoom buñ ñëwé fi ñu dit di ont ay problème parce que ils se disent que Macky Sall est un dictateur. Tu vois, il faut prouver que Macky Sall est un dictateur, que Macky Sall a emprisonné en ce moment-là tous les activistes sénégalais. Macky Sall a emprisonné tous les activistes sénégalais, tous les journalistes. Macky Sall a tué plus de 19 personnes, 19 Sénégalais, 19 victimes te ba a amul ben jugement amul ben dossier buñu ñu lolu loolu on ko wanee boo ko waxee ab nasaraan boo ko Canada mais ils vont se dire mais c'est pas possible comment un président peut tuer 19 personnes sans autopsie sans enquête sans ouvrir une enquête tout ça yooyu yooyu da leen di jaxal donc man je suis dans mon combat néna len stay focus focus len ci sen combat man je ci sama combat man suis ci sama combat c'est mon combat du combat au Tiaran, du combat au internet toog wax Mon combat c'est pour lever de des consciences c'est pour le changement radical donc euh, voilà donc il euh, y a un autre avocat je pense qui parce que je suis un d'avocat à tu vois yep yep un cabinet là Ok. Et puis, c'est des, des cabinets d'avocats. donc voilà stay focus leen quoi Ni ngi ci xeex bi sama gars focus leen ci xeex bi focus leen ci xeex bi man moom sama xeex xeexu justice la xeexu droit la xeexu démocratie la Le plus luñ mën a def dinañ ko def et que bu leen aussi les prisonniers les otages politiques bu leen leen fàtte dañ leen leen taxawu dañ def ay efforts pour eux et de remercier de passage Abdoul Ndiade qui a fait un acte fort, un acte de, civisme, un acte patriotique. Abdoul Ndiade, un de mes amis qui, est aux États-Unis, à Columbus, Ohio, m'a envoyé 100 000 francs pour Karim Khouroum et Abdou Karim, euh, Gay et qui euh, nga xamné chef Omar Diagne J'ai dit, passé euh, sama xarit bi chaque semaine dama koy yoni ci Abdou Karim Gueye dem suis fa muy Tidiane ñu nan ko Franck dem na il a donné à Abdou Karim Gueye 50 000. C'est un cinquante mille yi mu jox ko Cheikh Omar Diagne Cheikh Omar Diagne joxaat ko ko ne ko pour mu jox ko jabaram donc bu leen fàtte gars yi xeexal seen papa bàyyiwu leen fa xeexal sen intérêt bàyyiwu leen fa xeexal sen yaay bàyyiwu leen fa yeen lañ doon xeexal yeen lañ doon xeexal ñu jaay leen doole tëj leen ci kasso yi te ben sénégalais munul munul wax lan lañ jappé Abdou Karim Gueye lan la def këram lañ ko fekk muy muy naan euh, ndékki muy ndékki ñu tejj ko ki nga xam Pape Alé Niang buntu keureum lañ ko fekk muy defar pneu otom ñu tejj ko donc amul lenn luñ leen mëna te amul ben chef d'inculpation donc bu leen leen faté sama gaay bu leen leen faté encore une fois bu leen leen faté encore une fois faites tout pour baña faté gaay nga xam ne dañoo reyante pour yeen dañuy xeex pour yeen dañ leen jaay doole dañ leen togn bu leen leen faté dañ leen leen dem séti dañ leen dem séti boo leen amee seen dem len len kaso dafa metti tëj doomu adama restreindre ses droits tëj ko ci ab ngunu muy yeewoo ko di gis même chose dafa metti trop ci ko xamni rayo rayo dara lu ñaaw ñu la fa donc merci à euh, euh, nga ne moy Abdoul Ndiade japp na ci combat bi ma ngi lay euh, Cheikh Omar Diagne ci trop voilà 50 millions jabaram won naa la preuve yëpp tu vois euh, yónnee naa la audio yi tout ça soxnaam tamit euh, mi ngi lay remercier bu baax Abdou Karim tam mi ngi lay remercier bu baax euh, man moom de mon côté t'inquiète chaque jeudi damay yónnee doomu aadama lépp lu Abdou Karim soxla rek mu jëm koo jox ko ko pour mu sentir ni. bu mu fa duggee ba légui mangé ak mom mangi fanan ak mom di yew ak mom di teud ak mom ñoo bokk ben idéologie ben conscience citoyenne donc Abdou Karim Gueye man du baye mu wéet té euh, bis ni ki tay aussi dina gën baye xel Pape Alé Niang j'ai reçu le message de Pape Alé Niang à travers ki nga xamni mom moy euh euh euh Assane Diouf il a envoyé à Assane Diouf des messages pour moi Assane Diouf euh, woo na il m'a transmis les messages de Pape Alé Niang qu'il est au rendez-vous et mi ngi déglu kontaan taxawaay bi ko taxaw ci ni taxaw pour mom et que loolu tam tasaare naa ko ci sénégalais yépp ngeen japp ni Pape ale contane na ci yéen ci taxaw bi ngeen ko taxaw ndax dañ ko togn ndax dañ ko togn dañ ko fenal parce que buñ né ben dossier secret défense bo xamné ne mënuñu la wax ba légui dossier bi dossier ben dossier Pape Alé bu mu génné secret défense génne boo xam ni xanaa jinnee rek koo ko yor benn sénégalais yorewu ko benn doomu aadama yorul benn këyit bu ñu wane ni ñii am na ko ko yor te pap Alé la ko jox wala pap Alé Niang moo ko génne génne ko ci mbedd yi ba nit yi am ci accès donc ay kàcc la ay fen la loolu yëpp nag dinaa ko démonter devant les les avocats pour le montrer que on a un gouvernement de voyou un gouvernement de bandi ñuy jàpp ay doomu aadama di leen sosal di leen tiiñal di leen taqal di leen tëj ci kaso yi di leen fàtte di dem seen yoon seen doom yi di voyager di dem ay Dubaï di dem ay ay ay ay Koweït ay di dem etc. etc. etc. Des des di des di donc nek suñu avion yi donc sen doom ken du len tej japp suñu frères yi tej di len di sosal sincèrement euh, je vais essayer de le démontrer à travers des images à travers des écrits des journalistes à travers aussi mes explications et que ni euh, l'opinion internationale doit être au rendez-vous de l'histoire doit savoir ce qui se passe réellement dans ce pays bi nga décrire comme un pays bu calme un pays bo stable tandis que le Sénégal pas un pays stable, c'est un pays de voyous où nos dirigeants tuent et emprisonnent et empoisonnent les, des honnêtes citoyens sénégalais. Donc il faut qu'ils le sachent il faut pas que ñu bàyyi les ñoom fenkat yi nga xam nous ñoo nekk ci ambassades et consulat yi ñu leen di comme quoi Nous gëmloo les gouvernants les autres gouvernants que ñoom seen dëkk Sénégal c'est un pays très stable c'est un pays démocratique c'est un pays calme ay fenkat lañ donc il faut que sénégalais yi nekk foofu génn ñoom tamit révolté wane ni rien dañuy fen ni politique moo leen fi indi mais amuñu sax droit pour nekk ci ay ambassades wala ci ay parce que duñu ay ñoo xamné ne dañ leen former ci ay consulat ambassade il faut que sénégalais yi nek ci dëkk ba di génn di révolté wu ba wa dëkk ba xamni kon ñi lu ñuy dund seen dëkk ak li consulat ak ak ambassades yi di gëmlo seen gouvernement yi c'est ben c'est diamétralement opposé bokkul ay fen la ay naxasa xandang la ay caaxaan la il faut donc ñu déterminer wu ci xex bobu baña gis suñu intérêt personnel bañ ñew ci kaw bi rek am suñu jamm fàtte sénégalais yi lolu loolu c'est lâche loolu c'est lâche loolu c'est facile ñëpp a ko mun ñi ngi liggéey ñi ngi yor suñu xaalis bu ñu neexoon yem ci foofu ni ngeen di dundee ñu dundee ko toog kese sama papa sama yaay samay frère loolu ñëpp mun nañ ko loolu ñëpp mun nañ c'est très facile ñëw toog sa dëkk dëkk bi am say kayit di lekk bu suur naan ba màndi yor sa appartement taxawaalu wëndaalu nekk ci caga ji wala wëndaalu wut sa jaar nekk loolu c'est lâche bu nekk dafa war a au-delà de la famille le pays la nation nous leen défendre la nation nous la nation nous li chance injustice les crimes financiers nous nous la pour que démocratie Sénégal pour que la liberté Sénégal pour que la justice en Sénégal etc., etc manam intérêt personnel yi di def lu suicide individuel pour une résurrection collective donc euh, stay focus guys ndam day am on va pas euh, le laisser faire parce que mënu fi tegaat un mandat Ce c'est pas possible ni candidature kok mom nañu ray ñun ñëpp wala ñu mais c'est pas possible c'est pas possible donc euh, voilà ne vous inquiétez pas encore une fois comme nous venons de ko

loolu wax leen ko chaque jour ma wax ko nee leen Mollah nee na foog Macky Sall saa yi yeewoo foog jabaram foog ñu mu àndal foog ay ministre am foog ay député am foog képp ku nekk APR foog waa Benno Bokk Yaakaar loo leen mën ñëw leen. voilà donc bu leen sax loolu rek loolu laa leen dénk képp ko leen dégg mu leen di tardeloo jël leen lii dagg ko jox ko ko ne leen Mollah nee na loolu la leen baax mu ngeer ko moo leen gën a tàng moo leen gën a pare te foog mënu leen ko ci moom. loolu moom man maa leen koo dénk ngeen leen koy jox. Donc euh, voilà. Donc euh, voilà, on va lancer aussi une pétition. Je pense c'est super intéressant et important de lancer une pétition pour non à la troisième candidature de Macky Sall. a une vidéo yi nga xamné mom néwon de du def troisième candidature 2019 moy dernier mandat buñ ko falo ndol yépp ay vidéo mi ngi fi monter lancer pétition yi def ko ak vidéo

affaire de traitise la affaire de intérêt personnel kon man tay ça sama waji ken waxatuma très sincèrement amul ben sénégalais jamono ji bu jar plus que moi tay bu doon tay Sénégal dañ nan dañuy jënd doomu aadama tey prix bu may jar amul Sénégal sénégalais bu koy jar jamono ji may wax ak yow ni. prix bu may jar ndax amul ñaata mille mille millions yu me proposé wax voir leen ko chaque jour je me cache pas m'ont proposé des des des des des des terrains dit de 600 millions, ils m'ont proposé des euh, Range Rover, ils m'ont proposé des millions et des millions, ils m'ont proposé, Madame Faisal m'avait proposé 500 millions, Macky Sall, ils me proposent des millions. Donc, t'as dit, vous faites qu'on a dit, c'est encore un milliardaire là. Donc, si je vous un milliard là, sort là, je me virer un milliard pour mon nopi, pour mon maïlen jam. Parce que je sais que je suis Hassan Diouf, je sais que je suis Kouni Dam Yanou Yanou Yobou, parce que j'en ai absolument rien à foutre de ça, parce que <laughs> nee naa ma citoyenneté sénégalaise c'est donc lolu sànni nako depuis 2010 2011 mang ci benn niveau donc encore une fois faites quelque chose pour ce pays là té ñu bàyyi un intérêt personnel yi ndax bu faire ni sincèrement très sincèrement dérangé vous ma kon madame fay du jéem wo sama galé di paquette paqueté sama mère pour mu au palais pour mu wax ak mom dur ko ay millions pour nopi jàllul ma madame Faye ñëw proposer 500 millions jallul ñom ñuy yónnee pour proposer des millions jallul lu nek ils ils le font

dëkk boo xam ni boo demee Tamba marché ba yépp sa baayee ko moom te ba ci fu douane loué sax sa baayee leen ko loué ba ci banque sa baayee ko loué donc ku màggee ci loolu juddoo ci loolu très sincèrement euh, je pense que <laughs> c'est très difficile pour nga ñëw naan da nga koy naxee ay xaalis da nga koy naxee ay oto da nga koy naxee ay les les les plaisirs mondains donc man ku may nax da nga may nax fa yàllaahu da nga may naxee yàlla mais doo ma naxee ay affaire alal parce que dama cee juddoo dama cee màggee dama cee yaroo dama dem ba neexatuma woon may génn sax pour dund mbedd mi donc li ma am formation mbedd mi la dama bàyyi lépp man ma nekkee bu ndaw oto moo jël si sama buntu kër di ma yóbbu jardin faire camp militaire oto militaire oto militaire ay militaire ñoo camp militaire ñeu garé sama auto camp militaire yoy non ñeu garé sama buntu kër ñu jël ma ni ak ma yor sama ci lépp dugg ci militaire bi ay militaire ma ñu euh, euh, camp militaire ci jardin d'enfant ba ma militaire de ma garder etc. donc nous on a grandi dans des familles vraiment super riches super riche ñu ñàkkul dara lekk ba suur naan ba màndi ci biir kër ga am ay booy am ay gardien am ay mindaan bu ñu bu ñu tilimee sax dañuy sànni man man xaw bu ma xamee ne dañuy fóot silib yàggut sincèrement bu ma xamee ne dañuy fóot silib je pense bien que yàggut dama même silib da nga koy joxe dañu la koy fóotal xom fan laa demoon sax summi sama silib sànni foofu gars yi indiwaatal ma sama silib na ma waaye lii lan la ma ne ah lan la ñu ne ah, lan nga mun a defee ci fóot ma ne ah, ma ni <laughs> si boo xam ni silib te suñ man mosuma fóot silib xaw ma nu ñu fóotee mosuma fóot silib damay lépp laay sànni ci fóot bi dañuy fóotal am dañuy dañuy yeewu gis benn quatre mindaan yoo xam ne yëpp ñi ngi toog di fóot ñoom ñëpp rang di fóot buñ paree ñoom ajjuma ajjuma moom moo ñuy paaseel paase yëre yi mun duñ sol yëre buñ paasewul ajjuma paaseel ñu yëre yi Hmm? ñu am sa papa yor ay junni junni nak yor ay toli toli tol tol yi ba léegi ñu nga fa sax hmm? ci lool lañ maggé ci lool lañ yaro ñun ñi ci lool lañ maggé ci lool lañ yaro donc buñu paré ay auto jël ñi dem ci tol yi ay junni junni tol ak juroom ñaar ñu ko sax jéxal barki dem sama grand bi naan moy do ñew ci tol yi doo ñëw investir ci tol yi nangam nangam nangam wala ci lool la juddou ci lool la maggé donc bu ma gisee ñi nga xam yoruñ dara sàcc alal réew mi naan dañ may jéem a ci ay milliards wala kaa ñi jox la benn kër kaa ñi jox la benn nangam fekk man sama baay yor dëkk jënd dëkk ba dëkk ba presque quatre-vingt pour cent yi ay ay ay ay këram laak ay ay ay buutikam laak <laughs> hmm? ay doomu aadama yoo xam ne am nañ alal Sénégal ñu bëri yoo xam ne Tambacounda si sama bàyyi lañ liggéeyal ba doon ba doon tey tey ay multimillionnaire donc <laughs> voilà quoi très sincèrement ñi ngi sant yàlla di gërëm yàlla euh, xamuñu galère xamuñu mettit bu ñu ko xamee sax ñun ñoo ko int ñun la intéressé ñu dem galère ji parce que dafa ñu neex mais juddoowuñ ci euh, ci galère juddoowuñ ci juddoowuñ ci mettit juddoowuñ ci ñàkk alhamdulilah ngi sant yàlla bu baax a baax a baax baax wax na leen ko sama ba Youssou Niass ki nga xamne mom moma ma yar bo duggé Tamba buntu Tamba fo né Youssoupha Niass amul kuy dox Tamba ko ko xamul amul kuy dox amul mag bu ko xamul fajj na gatché yu bëri dag na mu gatché yu bëri dox na ay kër yu bëri ay saaku ceeb yi ñu ay saaku ceeb yi réré dañ da ngay gis galé fajar suba koñ koñ ba koñ ay doomu adama ranko ko bi di leen dox ay alal di leen dox xaaliss di leen dox ay saaku ceeb di di ko tasaare donc ñun ci loolu lañ maggé vraiment ci loolu lañ màggee voilà donc euh, du ay doomu aadama yu yu neex koromp yu neex non non non non non sincèrement ñu ngi sant bu baax suñu euh, exactement euh, Mohamed Lamine je connais bien Youssoufa exactement voilà dara ko def <laughs> mon père vit. waaw ma mère vie ñi ngi si jàmm ak salaam kenn xamul lu leen dara ñi ngi si jàmm ak salaam donc voilà quoi euh, mi ngi euh, voilà waaw ok donc euh, aye ah, <laughs> la <laughs> nga xam nga ñu de <laughs> donc comme ni ñu ko waxee rek

donc Pape Mourinho c'est mon grand frère donc ben, le ma waxoon moom mooy euh, toliani fi paa bi ay hectares la fi baye donc euh, si je si si je veux parce que dama bëggoon ñun ñaar ñu liggéeyandoo mais il m'a dit que non c'est difficile bon mom rek lu mu yanu dafa bari tool yi nangam nangam bu ma bëggee daal ma dajal dagal ay hectares ci tolu paa bi donc ma baye donc mais <laughs> nekkuma fa c'est très difficile il faut que moi il faut que Macky Sall jóge fi euh, Ousmane Sonko ñew ñu nous ñibbi suñu euh, Nous jël terre yi ko bu on va investir sur l'agriculture, parce que on aimerait investir sur l'agriculture un jour mais pour l'instant, instant bi motax temps et puis au euh, Sénégal voilà. wa <laughs> mu na ci ba <laughs> grand yeah, what's up donc voir comme nous, ko donc on était même pas là pour voir ci famille quoi dañu formation la formation de base la bu faites ne da nga famille ne la alal sa famille juddu ci alal donc sa bët quoi Une madame issue d'une famille pauvre la Ben ben Macky Sall issue d'une famille pauvre la tu vois donc. Euh, euh, <laughs> lolo la quoi donc man moi, vraiment sincèrement xam ni trop parce que mënuñu comprendre benn doomu aadama boo xam ni kaa ñu jox la àdduna ak li ci biir nga may ñu jàmm mu mënuñu noppi ñuy wuti ay sëriñ ak lu ne naan dañuy jéem a liquider mu tëleen donc euh, voilà quoi. te waxoon naa leen ne am na benn paa boo xam ne ci ñoom buñ doon bu ma doon bu leen doon ñaanal pour pour ñu tëral tëral ma tëral pour ñu tëral ma ah. <laughs> la waxoon naa la bu ma génnee lu ma leen wax nee naan paa bi daa feebar bu yàgg di ngeen dégg ni dee na de ñoom ñii may fexeel ñëpp dinaa dox seen bàmmeel billaahi wallahi wataalaahi ñoom ñi may fexeel yépp ma cuucu ma cuucu fay ñi may fexeel ñoom ma cuucu fay ak ay gàngooram ñi may fexeel yépp billaahi wallahi wataalaahi dinaa taxaw seen bàmmeel dinaa toggi seen bàmmeel incha allah incha allah donc voilà ñu ngi sant yàlla bu baax nag di gërëm yàlla bu baax comme ni ñu ko waxee rek voilà quoi donc gars yi stay focus dañ xeex ñun man maa ngi ci de <laughs> xaaruma leen de maa ngi bàcc maa ngi bàcc <laughs> boo seetlu leen dara opération bu dëmm foo ko defee dañuy génn def ay dugal ay photo <laughs> wala dugal vidéo di mastaw xanaa loolu mooy kaay leen mastaw ma duuri metti na démb seetlu leen loolu bu ma fëggee fëm fëm fëm bu ñu yewoo ñoom ñëpp cagga jeeg cagga ji saw seeg góor jigéen yeeg ñoom ñëpp dañuy dugal seen photo di xaar kaay leen mastaw ma <laughs> kaa leen mastaw loolu mooy kaa leen mastaw ma ay waaye du duuru démb metti na wudang wangi moo laa tuuti kaa leen mastawu ma moo tax dañuy dugal seen photo yi di ay j'aime ak oh, rafet na oh masta masta da leen leen mastawu waaye da leen leen mastawu da leen dem di mastawu ñoom yaa awa yaa yaa awa ci ak jaka jooju noonu dem leen ngeen leen ak ñoom ay xawma astu sall ak yooyu dem leen ngeen mastawu <laughs> leen duur yi daa métti de duur yi muy dem leen mastawu ñoom joor jaañ dem leen mastawu leen duur yi daa de vum day day arrêté nokki samay dóor day arrêté nokki vum yaa <laughs> ilaha illallah benn dóor man dëmm rëbb dëmm dëmm bu ma jàpp dëmm lay dóor ba nga eskante ba say famille buñ la xoolee sax néew yi dëmm lay dóor ba say famille buñ la xoolee néew yi <laughs> joo jaan nag famille am kontaan nañ nag ko ndeysaan tey fajar fajar ñu yónnee ma message rakk joor jaan bu jigéen <laughs> yónnee ma message quoi billaay wallaay voilà ma ngi lay remercier joor moom loo ko wax des na waaw loo ko wax des na c'est bien fait pour elle lii lépp moo tooñ boppam dugg ci ay manigance di jéem a toroxal Ousmane Sonko di ko jéem a euh, yàqal di jéem moo tax yàlla lépp wëlbati na ko ci kawam tey jii yanu na coow loo xam ni xamul fan la koy yenni ma ne ko wa yanu na coow de lekk na coow de ak moolaa rek ak moolaa rek su bàmmeel rek. Ousmane Sonko mun na fi ne bañ a tontu mais ak Mollah kese suqi mukki rang suqi mukki bum rang bum rang bum sa nokki bi arrêté ka ma këdd këm yóbbu bàmmeel <laughs> moo tax bu ñuy ñëw man leen pare ku ma de pare ko dossier dafa bëri de joor day ñëwaat de joor day ñëwaat de après avant ñoo dugg ci Antoine xam ngeen joor lan lay woowee Antoine est-ce que xam ngeen ko loolu laa koy tëjee léegi wax leen joor créé leen benn mot am na ñu naan bébé am na ñu mais léegi joor ban tour lay woowee Antoine ku ko trouvé ma la mbaqus ku ko trouvé ma yónnee la ma yónnee la cinquante mille léegi léegi ma woote Sénégal léegi ñu joxal la cinquante mille ku ko trouvé lan la joor di woowee Antoine ku ko trouvé ma woote léegi téléphone kenn jox la cinquante mille foofu voilà lan la koy woowee lan la joor di woowee Antoine mi ngi nii xaar whatsapp bi. léegi xaaral ma jéem xool mu woote nga xam bu ko trouvé rek am nga cinquante mille tey voilà lan la joor di woowee Antoine chou de faux <laughs> boo fausé rek dafa faux du ko woowee chou <laughs> mooy yàmbaa faux <laughs> non tey relaxé la tey dama am rendez-vous ak mes avocats quoi des avocats donc tey moom mënuma dama toog nii di xaar parce que dafa am ay visite dama xaw a tardé tuuti deux trois minutes moom président foo grand pays foo Bousin foo Mansouri foo dama leen may cinq minutes rek boo ko kiiwul nag après xam naa ni ma jël cinquante mille yóbbul ko Abdou Karim Gueye quoi waaw jëm ko déposé ci boutique am foo di Antoinette foo tutu foo daal di foo poussin foo waaye yéen sama gars yi tam mille cent cinq kenn mënu cee trouvé loolu poussin non du poussin du grand pi moo dudu non foo poussin d'amour foo non du ndaw la benn moo la benn moo la benn du ñaar du ñaar ay du poussin d'amour déedéet foo benn moo kese la maanaam moo tel moo tel bari bagage foo <laughs> non sappooti non ok léegi bàyyi ñu kii ko gaaw bon Dior xam nga lu muy wooyee Antoine xam nga lu muy wooyee bu Dior Diagne lu muy wooyee Antoine moo nañu moo nañu <laughs> Dior day lekk Antoine de moo nañu de la koy wooyee moo nañu <laughs> Dior du wax Antoine de moo nañu. mane ne añoo boo añoo añoo xam nga añoo mooy xar yu ndaw yi moo nañoo du moo presse moo nañoo moo nañoo la koy moo nañoo xam ngeen añoo xar xar yu xar yu yi nga xam ne da yëy seen yax yi moo nañoo de lagay koy wooyee <laughs> Félix ñàkk jom moo nañoo de la ko joor joor jàgg jaañ joor jàgg <laughs> jaañ joor jàgg jaañ kor jéggi jaañ joor <laughs> ak sadik bandi salte gi noonu <laughs> moo nañoo koy xanaa da koy mutarde moom koy da koy mutarde barbaki ko moo nañoo da koy mutarde barbaki ko de warax ko sama couloir bi mooy aller sans retour laay lay la nit ñëw fi dellu de ku soobu ne mes ku dem des ku soobu ne mes ku dem des sama couloir bi mooy couloir de la mort ku soobu ne mes ku dem des joor <laughs> mooy fàq joor doo wuy joor doo wuy ji joor doo dem wuy yow yaa monte plan bi yëpp yow yaa indi kii nga xam ne moom mooy euh, Gabi yaa indi gars yi bandi salté yëpp yaa leen indi ci dossier bi Dior doo dem wuyu ji doo dem wuyu doyen des juges Dior ay waay Dior demal wuyu doyen <laughs> des juges Dior demal wuyu doyen des juges nag baal caaxaan demal wuyu nag dinañ dinañ la woode yow saal ku yëpp yaa ko ci def Dior jàgg jaañ cay Dior joor lu ne mu dugg ca <laughs> jamono jooju ndeysaan elle voulait coûte que coûte Antoine ñibbisi quoi xam nga ci la ci la ko doon mystique ci la jëloon saafara bi di ko sotti ci café gi Antoine Antoine daf bi naa non j'ai senti l'arrière-goût yàmbar la comme góor jigéen j'ai senti l'arrière-goût dans mon café euh, dugg boobu la dawee joor nag di wëri sëriñ <laughs> Antoine dee na bala mu ne bala di maray ko mu wuri serign 8 mois ba l'affaire Adji sar kalaté tout jo Antoine ne mukk duñu mukk du fa tek tànk ba nga ci serign yi ya. <laughs> tamit <laughs> bala joor di ko ray maray ko yi jor magna Antoine ñaar yon jor magna Antoine ñaar yon ñaar yon comme ya xam mag mamam la mam mat na mam, Ah, mar na ko maam de <laughs> joor ci juddu ju njëkk ji la te juddu ju njëkk ja wóor na yàlla Antoine avant dernier la juddu mais joor saa day <laughs> joor mun joor mun naa jël Antoine tëj ko ci boppam te xoola du ko sax yëg joor mii waaye dañ bandi de man na Antoine ñaar man na ko man na ko yaay mun na ko sax jur bu poussin du fa def dara moo na ñëw du fa def tus du fa def tus joor kenn daal laa xam ni dóor nu ko ay gulaale yoo xam ne moom kenn fàttewu ko moom ñooñu moom laalante nañ ci ay grand place laalante nañ ci marché laalante nañ ci ci ci ci oto laal fu ne laalante nañ fa kooku moom moom mooy <laughs> Ahmed Ahmed Sarr xam ngeen Ahmed Sarr Ahmed Sarr moom dafa soxor Ahmed Sarr moom daa bon waaw xam nga nag gars yi affaire itam léegi léegi gars yi moom dara naturel tout le temps naturel la tout le jigéen yi yenn jigéen yi sein siliconé hanche siliconé taat siliconé góor yi tamit wut seeni wut seeni garab di naan <laughs> Sénégal loolu la nag léegi géel yi seen lépp la ñuy monte taatu caoutchouc weenu caoutchouc wala taatu mbuusu ndox weenu mbuusu ndox ansu mbuusu ndox funkil seen taat yi dégg ay ay mbuusu ndox ah bu ñu ko defee dara originalu góor yi tamit ñoom bu ñu war ko seq ñi nga xam ne dañoo ay ay ay kaw sule ñoom tam ñu wut seeni kii naan wut seeni doom naan jël seeni diw diw ci bagage yi une heure de temps deux heures de temps bàyyi ko ba mu sekki mun la jàppee comme ñu ma cuucu fay yu muy def pomp lay jël rek dóor ci cuucu bi dóor ay ñaar. naan toog xaar woo la nga war a ñëw yaa ngi ñëw waaw <laughs> waaw foo toll ma cuucu fay foo toll maa ngi ñëw ah, ah, mu jël benn un million teg à côté wallaay lazim minuit yi ngay dugg ak du matin nga fay génn da nga naan kii lan la comme moom xam ne yow lépp da koo plastiqué sa yaram bépp nga plastiqué ko gëmoo dara ah mu jàppale minuit ba cinq heures du matin jox la un million nga dem nga ñibbi dem séddoo kook sa yaay séddoo kook say sœur. comme nu ko jagay ji defee léegi nga affaire loolu la rek ah. naxante la rek bu lépp naturel lépp naturel mais comme léegi dara naturel lu góor yi tam naturel la tuñ de <laughs> ñoom ña ngay naan ña ngay diw ma ci mi ngi fekk ma ngay pompe bagage hmm? di naan et cetera affaire bi loolu la waaw moom la Samuel Sarr mooy Ahmed la tudd la koy wooye du ko wooyee Samuel Ahmed ana Ahmed ana Ahmed ndeysaan mais Ameth war na ko ndeysaan Ameth Ameth war na ko mais gars yi ñoo mën a waraatee non politicien du ñu nit ndeysaan lu ko Macky Sall lu ko Abdoulaye Wade defal Ameth lu ko Abdoulaye Wade defal Samuel Sarr bu Abdoulaye Wade yeewu woon mu gëm ni moom Ameth dina ko mës a wor mu ne déedéet cay gars yi non gars yi gëmuñu dara Souleymane Ndéné Ndiaye ba Abdoulaye wad bu mu fay jóge Souleymane Ndéné Ndiaye mo doon premier ministre non daje gars gay ay nooxóor lañ man bés ma trahiré fetal lañ may dóor man gor la man garmi laa man jay jaay jaay jay man gaynde laa non man numu ko ci loolu man makassa lu ko maral makassa Sall <laughs> PCA lañ ko yob muy mar neewoon neenoon na gaynde la ndakate muus la <laughs> neewoon na gaynde la de bas ma taire nañ ma dóor fetal nañ ma dóor fetal non non loolu ko ci dugg ya allah buni non man du ma ñooñu eh. ñii ay jaam nañ man gor la man garme la di wote gaay ne de mous la ñu tegal ko meew may mar ñu ki di Souleymane de nañu ne sant Touma Ndiaye da Diop Diop Diop Diop Diop Souleymane de na Diop xam nga ñoom dañuy tooñante naan ni Souleymane Ndeye na Diop la tuddu legi xam nga Ndiaye na la mais Diop mous la xam nga ñoom dañuy kalante gëmuñu dara dara gëmuñu ko dara dara gëmuñu ko genre tat tat tat tat ku ci discours nga ne kii non c'est fini gëmuñu dara ay vrai caga ñoom ñëpp Ousmane Ngom nag man duma musal topp Macky Sall du ma dox ci ginnaawam man yow man damay ma góor topp ma nga ca ginnaawam de du <laughs> ñu nit billaahi non du ñu nit du ñu dara gëmuñu dara on naa des politiciens putes loolu moo tax Sénégal yëpp di retrouver wu ci Ousmane Sonko xam nga lan moo tax parce que dañu gis ni gars yi ni ñuy jaayee seen ngor billaahi loolu moo tax gars Ousmane Sonko ñëwul ñëwul gëmloo ga gars Sénégal dofuñu de Ousmane Sonko ñëwul gëmloo leen ay rêve ñu topp ci kawam de déedéet. billaahi dañoo gis ni dañoo yàgg gis ñu leen di trahir ñu leen di fenn ñu leen di nax ñu leen di sàcc ñu gis benn doomu aadama boo xam ni quinze ans impôt et domaine dara topp ko gars yi amuñu luñ koy toppee loolu moo tax gaa yi dem jàpp ci gis ni bu ko neexoon mu rallier xool leen Idrissa Seck sa Seck lu mu fi far xeetu sóoraat bu ne génne la ko fi xeetu wax ju ne xool leen sa Seck <laughs> laa ñoo am ay xaj la politique est sale au Sénégal moo tax seul Ousmane Sonko peut le changer moo tax ñu am espoir ci Ousmane Sonko seul Ousmane Sonko peut changer la done dañu am gëm-gëm gi dañu am yàqin bi dañu am yëg-yëg bi parce que doomu aadama yi ñu fi gis yi ñu woon ay Aliou Sow ñoo ñoo salte jabaram ji samake laa <laughs> ilaaha fu ñu mujjee kan mo mujjé tak sama ke dam len laajte dam <laughs> len laajte lu mu waxul fi amul Macky Sall du musa musa top ci ginaam du musa mus a man faale ma ko man Macky Sall man man yow man Macky Sall ma sama ginaaw mi ngi ci bir <laughs> la ilaha illallah motax ñun ay politiciens yu xassaw ay 12 cabinet lañ yor ay politiciens force vidance force sceptique ay politiciens salté lâche qui n'ont pas honte vrais nit ay vrai prostitué politique ce am loolu Sénégal sincèrement pas jël un espoir di politiciens. jox politicien moo des a kenn léegi ndax dañ fi am ay des ay dëmm lâche ay vampire assoiffé ay nit yu yu amul dignité ñu de vergogne ñu dul rus ñu dul xalaat démb ak bëkki démb xolal Farba Senghor lim fi waxaloon Ablaye wat tay mi ngi ci Macky Sall xolal pap Samba mbub ku gis Ablaye wat non waaye Ablaye wat mais politique saltana nag waaw pap pap pap politique Sénégal saltana Aïssata Tall Sall ya ngi di fàttaliku ak waxam ju ja waaw man sale, Bourguédé man xoolal comme toroɗo comme toroɗo Allah, Allah ala boni mi watta ɗum me mi watta comme ɗo comme toroɗo comme comme comme pullo comme pullo jeeri toroɗo ma nga ci biir di jouer sale boulot saleté à Tall salle, elle pue la merde elle n'a pas honte c'est des lâches c'est des prostituées politiques qui ñuy transhumer du jour au lendemain nous gëmul seen parole nous respectons la parole nous avons dignité de vrais lâches. Et Bamba Fall ben Moussa c'est lâche Sonko sauve-nous s'il vous plaît monsieur Sonko sauve-nous sauve-nous sauve-nous le Sénégal est dans le précipice sauve-nous s'il vous plaît

ay Ablaye Sow yi nga xam ni PS la PDS c'est des lâches ay Idrissa sec oh Sonko viens nous sauver viens nous sauver ngir Sonko sauver ñu man Sonko président bi bi bi bi bi bi sama numéro téléphone yëpp laay changé changé sax sama tur changé sama tur du ma yor daraay sénégalais xam nga ba léegi maa ngi carte d'identité bi ba léegi maa ngi gardé passeport bi à côté mais jour bés bu yàlla defee bii nii suñ ko falu maa ngi defal live téye passeport bi taal ko nii taal ba mu tàkk tàkk ma jël seen carte bi taal ko ba mu tàkk ba mu jeex tàkk ma tegee ko ne disparaître bàyyi leen àdduna ak àllaaxira àdduna ak àllaaxira bolote leen partout changé samay numéro dootuma leen laay valati dootuma sax làkkati wolof ñëw nag jël samay nationalité di làkk gars yi ay français di làkk gars yi ay espagnol dem ci dem original nag li nga xam ne moom laa doon bàyyi leen àdduna ak àllaaxira doo leen gisati Mollah bu leen di liveal dama leen dul sax tal dama leen di bloqué partout bëggatuma lakk sax wolof bés boo leen caaxaanee ba soo ko toogul dootuma làkkati wolof ndax dootuma leen déggati seen làkk dama leen di bàyyi bàyyi seen internet bàyyi seen live bàyyi seen portable bàyyi seen Sénégal bàyyi seen lépp lépp lépp seen passeport lakk seen carte d'identité lakk lépp lu lu laal Sénégal lu muy gis lu nuroog Sénégal effacé wu jël sama bopp bi dem yóbbu ko ñu trans defaral ma ko brainwashing lépp luy Sénégal ceeb ceeb bàyyi ceebu jëm bàyyi maafe bàyyi suppu kànje bàyyi su domadaa bàyyi yaasa bàyyi bàyyi keccax bàyyi yabooy lépp loo leen moom ma bàyyi ko voilà di lekk ay ramion di lekk ay ramion di lekk ay merguez di lekk ay hot dog di lekk ay hamburger di lekk ay sawarman bàyyi leen àdduna ak àllaaxira àdduna ak àllaaxira raxas sama loxo ci yéen ba mu set benn sénégalais du ñëpp lay filtré bu ma gisee benn tour sénégalais dama koy filtre du ma ko du ma ko déglu parce que je ne suis plus sénégalais de me effacer complètement ci sen dund 2024 bi ngeen taxawal wala ngeen tiaxan wala ñu fo ba kiiwuñu ko ku ma ci da nga lay bolaxé koku mom dama leen koy téla a wax damay génn ci yeen aduna ak alakhirah bayi leen sama giiru dund sama giiru dund bolaké leen partout effacer carrément ngeen dem ci xat ma dem ci xat nañ dajé yowal xiyam nañ daje boobaa nañ daje yow man xiyaam voilà ñu rendre ay compte man a yéen point lépp laay bàyyi lépp lépp déggoo Sénégal laay bàyyi yoon yoon buy dem Sénégal dama koy bàyyi bu ma déggee fenn sax ñu ne avion bi Sénégal la jëm sax ma fatt samay nopp bu ma dajee benn Sénégal yooyu ça va moo laa euh, ma tudd ma moo laa de. bulma ma woowati Mollah nag bis ni que buñ dajee aéroport nga mom bulma ma mola, tout tudd ma Jean Michel la tudd Jean Michel Jean Michel Niass bulma ma woowati ah bon wéy yooyu ne na ma du ma sax wolof ne m'appelle plus mola, ne m'appelle plus Mollah non non non non je suis pas sénégalais je suis pas sénégalais c'est la première et dernière fois que tu me parles wolof que tu essaies de me parler wolof.

Bonjour. Voilà. Oui, non, je regardais si vous avez fini. C'est bon Ah, ok, ok, parfait. Parfait. À tout à l'heure. ils vont venir me chercher alors. Voilà. Vous avez vu, fille du Sénégal. ngay ñëw nii ah lan waaw bu fi kii de bu fi di di la napp ndeysaan moom da ngay réew da ngay ñëw toog ñu la non on vient te chercher <laughs> ñi ñoo xam droit ñi ñoo xam loi ndeysaan dëkk yii dëkk yii sa waay amul woon làmbaay ñaaw de dëkk yi dëkk yii ñoo ñoo tax adduna équilibré amee ay xet am ay dëkk bandi bandi salté dafa ay dëkk yu set yu baax yoo xam ne day tax àdduna équilibré waaw day équilibré

donc voilà ndax ma gaay man daal moom bii moom bu ñu ko ñàkkee pare naa ci bii moom bu ñu ko ñàkkee yàlla bu ma doon Jean Michel Niass xaw ma nag ba xam comprendre nga yàlla bu ma doon Jean Michel ñes maanaam yàlla bu situation bi toll foofu ba ñuy doon Jean Michel Niass <laughs> voilà euh, Grand Tunkara Grand Tunkara gis nga macha allah nag xamul moo tax. c'est important maa ngi remercier grand Tunkara di ko big up xam nga moo tax man ma leen di wax naan da leen bàyyi xel ci li may wax quoi damay parce que je suis un philosophe je suis très philosophique je suis très philosophique pour ñi ma xamul ñuy gën a bàyyi xel ci li may wax dafa am importance sama wax bés boo ko jëlee premier degré da ngay rire parce que je suis philosophe je suis très philosophique je suis un artiste mais je suis super philosophique brain Bou allah wallahi la azim brain Bou doy bandi quoi brain brain réfléchir 10 mille fois à la seconde qui le lu autour de lui mais ça, y ma waxé. Galilée ma débattre ñëpp nangu loolu yàlla daf ma may lool te waxoon naa ko may wax ak sama grand Ousmane Tounkara man Ousmane Sonko dama ko gëm dama ko bëgg ma ne ko man gëmuma Ousmane Sonko bëgguma Ousmane Sonko projet am xoolal Ousmane Sonko dem fenn wax même chose ne man bu leen ma gëm yàlla ngeen war a gëm bu leen ma bëgg. bëgg leen projet bu may def bëgg leen idéologie bu may def bëgg leen rek gars yi dem identifier ma ne laa ilaha illallah moo laa doo nit moo laa moo laa mën leen yéen Ousmane Sonko mënu leen wax lenn lu ma leen munul wax xanaa xam ne bu ma bokkoon Pastef maay deuxième kenn du ma jiitu idéologie Ousmane Sonko wallahi bu ma doon Pastef maay jël deuxième après Ousmane Sonko man la je vais drainer des foules Ousmane Sonko bu ñëwul wala mu feebar wala mu am gàllankoor man je vais des foules Je sais parler. Dès le bas âge, je sais parler, je sais parler avec les Sénégalais. Je sais drainer des foules. Je sais pour hypnotiser une, une population. Je sais pour que la population puisse capter. C'est ce que je yàlla may ma ko tamit je sais parler je sais m'exprimer Il y' a pas de leader après Ousmane Sonko koo ne mun pas ma dàq wax wala ma mais boo ma ko Ousmane Sonko génn def vidéo même chose ne leen yàlla lañu war gëm bu len ma gëm projet bu may def motax man len les hommes meurent mais les idéologies demeurent dama ko sax rap les hommes meurent mais les idéologies demeurent Ousmane Sonko mën na feebar suba ñaanuñu ko yalla mën na dé suba mën na dootul mënati dara lan la ngeen di def ana ñu don fan ana ñu don bëgg ñoom ñep dañuy dem taxawaalu ji fële dañ koy bàyyi mais do gëm nit ki parce que nit ki amna idéologie bu muy dégager budul dé nit ki day dé mais idéologie bi du dé Serigne Touba nekkatu fi mais ba légui le mouridisme est là ci Ahmed Tidiane nekkatu fi mais ba léegi Tijaniya mi ngi fi donc les hommes meurent mais les idéologies demeurent donc idéologie doomu adama bi ngay top do top doomu adama bi diko fan wala diko bëgg wala diko ko naw wala diko nangam les actes mo fi dess lidiwul li ci mo fi dess té lolu buma ko waxé dama ne dama ko wax rek Ousmane rek am ñu tiene non mola non Mollah nanga ma la déglu leen déglu leen Mollah déglu leen Mollah mola buy développé da nga nan diko ko dégg Mollah dafa mëna wax dafa mëna développer dafa am xam-xam yi xam-xam nak mi ngi ko jëlé ci ñaar té lolu da ko xam moy les livres et les voyages. Les livres et les voyages. Moi, la voyage beaucoup et lis beaucoup. Moi, la voyage beaucoup et lis beaucoup. Donc, en a fait am benn expérience pour xam ni mun wax mun a donc bu leen dégg dara rek tëll ça leen moo laa ndax saa yu ma waxee Ousmane Sonko bu waxee wax li saa yu ma waxee Ousmane Sonko bu waxee wax li may wax moo tax ma ne leen yàgg naa leen ko wax ma ne leen bopp laa du ma génn bu ma ñëwoon tey Pastef bokk fa après Ousmane Sonko man la du keneen keneen du ma fa jiitu après Ousmane Sonko maa ciy tegu. parce que comme nan la flatter les foules nan la dompter les foules nan la wax ak foules yi nan lañ nan lañ leen di préparer loo psychologiquement mentalement et cetera et cetera loolu yàlla may na dans euh, euh, les temps modernes doomu adama yep man lañ def le philosophe sama live yi ñuy dagg di partager ci TikTok yi partout kan lañ ko fi def kan kan lañ jamono ji lañ gëna partager live am ci Sénégal ci jamono ji depuis plus de quatre ans kan ban doomu adama lañ gëna partager ay live am wala di dag ay yenn portion yi diko ko ci YouTube partout moo laa est partout philosophiquement limay top té kenn du ñëw ne c'est faux wax de non dafa reetaan lu mais wax parce que j'ai joint l'utile à l'agréable Je jël nee naa un peuple da ngay xam peuple la nga xam état psychologique de ce peuple là avant de véhiculer ce message Il y a des messages si xam ne boo état psychologique du peuple c'est un message du diable. donc l'état psychologique c'est un peuple émotif c'est un peuple bi nga nekkul benn peuple bu bu bu bu gaaw a euh, euh, maanaam rejeté peuple boo xam ne dangay xale la peuple boo xam ni xale la buñ leen libéré yàggut donc peuple boobu xale da koy neexal nee naa leen la théorie du suppositoire man sax maa ko créé lan mooy la théorie du suppositoire xale bi bu fekkee ni yaay gi daf ko bugg a defal suppositoire ci taatam mi da koy jël seddal ko da ko jël rek dugal da koy jël seddal ko lu tax ñu koy seddal pour mu mun a sedd dugg ci taatu xale bi ndànk calmement te du ko gaañ ba pare du yuuxu ñun ñëpp sañu yaay tëral nañ ñu ubbi sañu ki jël suppositoire ci frigo bi dugalal ñu ko ci en un coup tubaab bi jël xale bi di ko defaral siro di ci def suukar. même sirop bu verte bi nga xam ne ñëpp naan lañ ko affaire soj da nga am suukar day mel ni lem et pourtant ça day faj tubaab bi jël xale bi lépp lu nga xam ne dafa nekk mbirum euh, euh, sirop mu suukare ko moo tax xale yi boo leen di jox suukar day neex ci ñoom te pourtant da leen di faj de garab la de ñuy faj ñoom maral kudd bi mar kudd bi ñoom ñëpp def nañ ci donc il faut nga. comprendre l'état psychologique d'un peuple pour nga mun Je wax ak ñoom Ousmane Sonko loolu la xam Macky Sall munul loolu Macky Sall ça yu waxee ñu saagu ko saa yu waxee ñu xeeb ko parce que munul dire. il est arrogant Macky Sall il est hautain c'est un revanchard discours haineux la yor discours napaté. la

man liir naa ko bu yàgg l'art de la guerre loolu da lay wax étape par étape nan nga war a xeexee étape par étape nan nga war a xeexee étape bii noo war a xeexee ba ba xam guerre psychologique la wala guerre mentale la wala guerre physique la wala guerre outrage la outrage donc il faut nga xam ak fan la Il bi tollu yan technique ngay utiliser une stratégie ngay utiliser c'est intéressant et important l'art de la guerre de Sun Tzu livre bu am solo la les stratégies ak les formes de lutte yooyu yëpp c'est des livres la rhétorique merci beaucoup donc bonne nekkee ci écoutez je vous dis quelque chose hein. frère les techniques de galvanisation des foules les 48 lois du pouvoir exactement il faut beaucoup lire hein. il faut beaucoup lire c'est important et intéressant de lire euh, parce que euh, Uh, leaders are readers you know maanaam leaders yi ay liirkat lañ leaders are readers maintenant comme nous ma leen ah, waaw guerre outrageuse am léegi lan na moom am na on a vraiment espoir à Ousmane Sonko am nañ ci yaakaar te yàlla bu suñu yaakaar tas gaay bi ñu def réew mi salte yàq nañ ko yaxeet yàlla nañ yàlla génne ci Macky Sall ci jàmm jële ko fi ci jàmm ñu teg fi Ousmane Sonko organiser dëkk bi traquer bandi yi traquer mafia bi traquer lépp li nga xam ni dañoo yàq suñu réew mi jàpp leen yóbbu leen ci devant les cours et tribunaux juger leen def topp leen ci enrichissement illicite nangu lépp luy alal defar réew mi jële fi képp ki nga xam ni da ngay wut lu yomb ay affaire de griot ay ay affaire euh, association des euh, xaw ma ne communicateurs traditionnels lépp képp ku bëgg yomb ñu jële la fi képp kuy dund ci ñaq doomu aadama yi ñu jëlee la fi teg dëkk bi ci jàmm teg dëkk bi ci njub teg dëkk bi ci liggéey yi teg dëkk bi ci sens du patriotisme teg dëkk bi ci jàngal leen civisme jàngal leen suicide individuel pour une résurrection collective jàngal leen bëgg seen réew jàngal leen citoyenneté jàngal leen autonomie jàngal leen développement endogène jàngal leen jàngal leen bu ñu bëgg seen réew ba ñuy yeewu di jënd seen ciment di tabax dëkk bi ba ñuy yeewu di rokkos eh, eh, eh, tali bi di ko defar sans xaar kenn ci lenn loolu nag dina ñëw suñu xeex bii fruit yi du tey yàlla mun na def ñu fekke ko comme yàlla mën na def sax duñ ko fekke mun na def tam ñu fekke ci tuuti mais jàppale ni xeex bii xeexuma ko de pour yéen de suñuy xeex bii bu sottee ndeysaan seen sët yi ñoo ciy bénéficier wu

Euh, entouré garab gi donc xar yeeg bëy yeeg nag yeeg mbaam xoox yi ne dañuy lekk garab gi donc garab googu mënuñu ko jiitay xoox bi mu joxe ay fruits après des années dina joxe ay fruits kon xeex bi du tey xaaruma ci benn fruit parce que xeex bi ma dama gëm ni dama fi war a samp garab pour samay sët mun a ñëw lekk ci mango bi pour samay sët ñëw mun a aji ci orange bi buy sama seut ñew mëna lek ci banana bi kon garab gi du sama garab duma ci fexlu duma ci lek, mais dina ci rayante pour sama seut ñew witt ci garab gi lek ci tëdd ci suuf di noppaliku ci kër gi lolu la nek di liggéey te garab gi dañ koy samp par A ou par B contre vents et marées avec la détermination du peuple dañuy samp garab par la force de par la force de l'embam. amul n'y bu force pouvoir force population la volonté populaire on ne parle pas de la force populaire parce que la population boo gis force on parle de la volonté on ne parle même pas de force populaire, on parle de volonté. Parce que nous savons que le peuple force là. Mais si nous avons volonté, nous donne force. les gens parlent de volonté populaire, s'il vous plaît. Nous avons volonté populaire. Nous avons volonté la volonté populaire à gagner ou bien la volonté populaire a pris le dessus sur le gouvernement véreux. Donc, encore une fois, détermination, volonté, abnégation. Et Inch'Allah, Dieu sera avec nous. L'effort fait l'effort. Une patrie se compose de morts qui la fondent et des vivants qui la continuent. donc incha à euh, bientôt di leen wax ni gis naa tamit affaire yi ngeen jàpp ni film yi bokkul fa laa koy tëjee doomu aadama yi des fois dañuy mola way mola yi mom live bi yu mel nii lañ bëgg c'est très instructif c'est mola bu bëggé taxaw comme en tant que professeur mën na taxaw fi di jangal aduna ak wërngal këpp ak lu ko wër parce que amna matière grise bi mais dañu nekk di xeex les samedi xeex la mun naa ñëw nag ay lundi defal leen live instructif prise de conscience collective mun naa ñëw par lundi wala par jeudi di leen ko defal wala ma jël journée bi nga xam ne moom la pap Alé di def bu mu doon def ma jël ko parce que la nature a horreur du vide les jeudis ma ñëw di leen defal des live instructif mais samedi moom c'est rëbb dëmm samedi xeex la dañoo yeewu di rëbb dëmm yi ci taxaw bi di rëbb nooxóor yi dilen japp dilen di ay xir dilen dur duur ay jaasi jaasi Shaolin yi di keppati sen bop yi donc bobu xex la bobu ay deret la ay yuux la donc bobu c'est c'est euh, comme ay grève digues lañuy guenné vous comprenez donc samedi bi moom jàppale ni film horreur ngeen di seetaan parce que opération la recherche cherche opération rëbb dëmm film horreur la film vampire la vol la viol détournement malversation Wang dans la dynastie du Wudang Wang c'est la lutte libère donc ni le samedi c'est l'opération la Boudoum et artu et ay donc nous naa ñëw live tous les jeudis maintenant Et live nous xam ni nous nous nous kenn dañuy de sujet ñu ñu ñu prise de conscience collective nous ak askan wi développer sujet wax Sénégal la société sénégalaise peindre la société sénégalaise suñu tar et cetera et cetera suñu qualité suñu défaut mën naa ko yokku foi bi yokku éthique bi yokku euh, euh gom jom bi yokku ngor gi et cetera et cetera yokku dignité bi mën def mais samedi c'est des films d'horreur ay grève diggante lay donné taxawa taxaw yor sama pelle sama pic sama jassi donc les samedi euh ku ñew rek jàppal ne loolu nga fay gis film horreur ngay seetaan mais mun na ñew inshallah tous les jeudi waaw samedi prison break la les jeudi mun na ñew di leen def ay live instructif ñu tok waxtaan développer comme ni ngeen ko bëggé parce que gis na ñu bëri naan bi mom c'est le meilleur live de tous les temps moo la bii moom nangam na moy bu mu mujjé def jeudi bi passé mais les samedi c'est est dem ok euh, let's go guys kon ma ngi leen di big up bu baax a baax kontan na ci yeen di len wax ni le combat continue euh, nañ farlu nañ taxaw bëgg suñu réew te te di wax ni yàlla seetaanuñu suñu borom gis nga bo nekké ci yoonu njub kenn lu la dara bo wacce sa yoon do fa fekk suñu borom bu boobaa saay-saay yi dinañ la fexeel dinañ la mënal dara moo tax man ma bugg lépp lu may def ma teg ko ci dëgg tant que maa ngi koy teg ci dëgg saa yu mu wéetee xool gauche xool droite yàlla laay gis moo may muur gars yi liñ may dóor ci flèche li ñuy sànni ci corde luñ may yóbbu ci ay sëriñ luñ may mystique karaw mettiwu ma karaw karaw bu gën a ndaw mettiwu ma karaw mettiwu ma maa ngi jàmm ak salaam maa ngi sant yàlla ma leen gën a wér te ñoom ñëpp naa joggi seen bàmmeel xamul tax parce que damay dox ci dëgg di xeex te yàlla tax mais bés bu ma wàccee wallahi yàlla bàyyi ma fa képp kuy dox ci kaw tali di nga mën a dajeek oto waaye ku génn tali bi wàcc tali bi dugg ci mbooy gi gaynde ngay dajal wala bukki wala éléphant wala xar wala lu mu mën a doon wala benn animal bu la lekk wala benn serpent déggu leen de boo tegoo ci kaw tali bi ci yoon bi ci yoon bi oto moo la fay dab soit mu yóbbaale la wala saret mu yóbbaale la wala fas mu yóbbaale la benn wala benn moyen de locomotive yóbbaale la mais boos boo wàccee tali bi dugg ci mbooy yi di nga fa dajeeg gaynde di nga fa dajeeg bukki di nga fa dajeeg éléphant di nga fa dajeeg facochère di nga fa dajeeg lu la mën a rey wala gaynde donc ci yoon bi la ñuy dox moo tax du ñu mën a dara moo tax mosuñu nalaw tiit mosuñu nalaw ragal leen mosuñu leen calculer ñun ñoo jamono ji ñoo toog seen kaw tee leen nalaw te musuñu tiit une seconde parce que ci yoonu dëgg la ñuy dox ba bés buñ ko wàccee commencé di fenalaate ak a sosalaate ak wax lu ñu neex ak jël xaalis ak ko dund ci corruption wallahi yàlla ne nit loxoom ne mola laa yaay workat moo laa yaay jaam moo laa askanu 17 millions nga bugg a ay waay moo ay moo kon man gëmoo ma woon kon danga ma doon sàkketoo bàyyi naa sa bopp da maa foog ne da ma wóolu mais bàyyi naa la ak sa bopp bu boobaa nag luñ def dawe dal ñu ma jéemal day sotti mais jamono ji yàlla moomu muur lu ñu sànni na yàlla ne ma nii ndeysaan ma yëg maa ngi yëg maa ngi yëg ci sama biir bopp maa ngi yëg ci sama xol wallahi alazim maa ngi yëg la protection divine billahi lépp lu ñu dóor yàlla nga kay faxas lépp lu ñu sànni yàlla na buuf buuf buuf te defaluma ko dara moo tax saa yu mu jullee damay jël lu mu dee quinze minutes di ko sant rek aya ah, allah jërëjëf aya ah, allah lan laa defal aya ah, allah merci a jaaraama albarka ya allah aya allah man sa jaam bii defaluma la dara mais nag nu ma taxawoo nag xool leen nii lu nga leen may am nañ alal am nañ doole am nañ pouvoir mais luñ ma dara te yëpp du sama mën-mën du sama sago yow kese la sa mën-mën sa doole nga ma sàmmee nga ma muureel alhamdulillah alhamdulilahi rabbil alamin kon fii la ñuy jaaree di sant suñu borom subhanahu wa di gërëm muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ko di ko delloo njukkal di wax ni santale leen ma sama borom sant borom yaa allah gërëm naa la sant naa la alhamdulilah alhamdulilah yàlla nag ma sàmmal sama Sénégal yàlla nag ma sàmmal doomu aadama yi yàlla nag ma sàmmal ñu jub yàlla nga ma sàmmal ñu baax yàlla nga ma sàmmal patriote yi yaa allah yàlla nga ñu sàmmal Ousmane Sonko ba tey ji def ko mu jiite ci réew mi ñu changé lépp yaa allah jërëjëf jërëjëf jërëjëf merci beaucoup albarka jaaraama alhamdulillah yaa allah jërëjëf yaa allah merci yaa allah jaro lakk yaa allah jaaraama yaa allah amuñu safay amuñu safay yaa allah yaa allah yaa habib allah merci beaucoup one love